asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi dalati lañ si jàmm fii si jamono TV seen mbokk la Salif Thiam maa fi dellusiwaat si kattanu borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy may wér ak wér la mu yeetu nañ na ko ba ñu mën a dellusiwaat fii di ñaanal ñëpp ci at bu ees buñ dugal ni yàlla defal ñu si jàmm ak sutura ak barke ak barkele ak fulandi suñuy mbir tey nag euh, dellusiwaat nañ comme niñ ko baaxoo di ko def rek saa su ne jamono bu nekk rek euh, dinañ fi toog fas yéene waxtaan ak euh, askan bi rawatina ña nga xam ne ñoom ñoo safoo jamono TV waxtaan ak ñoom ci la nga xamante ne ni moo gën a fës si suñ nekkin ñu nag suñuy waxtaan saa su nekk rek nit ki nu nit ki ak ka ko amee mooy kam jox alalam pour mu liggéey ak moom kam dénk dooleem pour mu liggéey ak moom kam dénk ñàqam pour mu liggéey ak moom. kam dénk xalaatam pour mu liggéey ak ñoom kam dénk it euh, la nga xam ne mooy yaakaaram ci àdduna du àllaaxira de yaakaaram ci àdduna muy bokk moomeel mu jox ko mooy njiitu réew mi ak njiitu réew mi it tànn ak njiitu réew ñay liggéey ak moom ñu ñi lañ amal affaire waaye jamono jii soo xoolee ni àdduna di doxee rawatina suñu West Africa bi gàcce la duma ñëwagum suñu réew mi parce que la xew Guinée suñuy mbokk la la xew Mali suñuy mbokk la la xew Niger suñuy mbokk la la xew Sénégal tey suñuy mbokk la lan moo tax yii di am lan moo waral lii lan mooy suñ feebar ba mënuñ koo faj lan moo jar ñuy soxorante di iñaanante ci lan nguur yaa ku toog ne du wàcc ku toog soppi ay loi xoolal Centre Africa Republic gaa yaa ngee dem référendum ngir la président bi bugg a toogaat lan mooy problème bi ndax ñun africain ci ay dof lañ walla nit la ñoo xam ne amuñ xalaat wala nit lañ ñoo xam ne ni nu ñuulee noonu la suñu xol yi ñuulee am nit ku toog bëgg-bëggam ku toog njëriñu ay njabootam ku toog njëriñu ay xaritam askan bi nga xam ne ñoo la fa teg ñoom ñu ngee sofa ku toog balaa ngaa jóg ay ten ten people faatu ñii ay hundred ngay dégga Alpha Condé balaa moo jógee koo Guinée ñaata hundred people ñoo fa de ñaata ñoo fa yàqule ñaata ñoo toog foofu ay ndaw yoo xam ne nuñ dox Mali balaa coup bi ñaata nit ñoo fa faatu ñoom ñoo gën a woosle sax parce que ñoom ñu ngi ci ethnique problème Burkina Faso noonu Niger noonu Sénégal tey yaa ngi gis ñu ngi la naan fifty something ñoo dee. ci tri yeesu waaw am na ñu faatu kenn xamul leen am na ñu feebar ñu ngi toog te yaa ngi gis li fa xewaat te lii feebar la buy wër West Africa lan moo ko indi baat leadership ku toog jàpp ne nguur gi yow sa yaay moo ko moom walla sa baay moo ko moom ngay jël ña nga xam ne dañ bëgg sa toogu bi parce que toogu bi kenn moomu ko nee naa leen yàlla mooy joxe toogu bi kum tudd ne yaa koy am nga am ko du suma yaay moo am taar tax suma doom war koo am déedéet du suma baay moo jàmbaar tax suma doom war koo am déedéet am na ñoo xam ne seen baay yaa ngay jàmbaar musu ñaan dépassé seen doom kenn xamut leen am na ñoo xam ne seen ndey yi dañ sëy ba dee ñu am barkeb sëy seen doom yi am barkeb sëy te kenn xamut leen waaye yàlla lépp lu tudd ne lii maa ko joxe loolu su la neexee sax nga am jëkkër sax nga ñàkk am jëkkër am doom sa sa doom man na doon président yàllaa koo joxe jigéen buy fay fukki sëy ak ñett doomam yi mën nañ nekk président parce que yàllaa koo joxe waaye lan moo tax suñ toogee ñuy soxor soxor soxorante ña nga xam ne ñoom ñoo buggaa a toogu bi lu tax ñoom suñ toogee duñ nangoo jóg tardement rek mooy am ndax loolu moo war a doxal réew soo waxee ñu ne la tubaab bi tubaab tubaab dafa liggéey diiru dundam danaan lii ba 50 years walla lii ba 100 years wala lii ba 500 years wala lii ba 1000 years tubaab yaa ngi am biri yoo xamante ne 500 years tubaab yi bañ seetulee ci àdduna du tey ñun ba tey mënuñ am dara mënuñ tekki dara mënuñ doon dara lu waral loolu lan moo waral loolu. ku toog ne du jóg Jawara thirty years Yahya Jammeh twenty two years président Barrow mu ngi nii di utali fifteen years parce que waxut lu xew ndax lii mooy yóbbu réew Macky Sall mu ngi ne la nee na bàyyi na waaye ñaata nit ñoo continuer di dee Sénégal barke Dembo Ndiaye naaj ja def nañ coup ñu ñëpp xam nañ ni Bazoum ñëwee tëj opposition pour xalal yoon baasu mu mën a ñëw nekk ab soo forcé wërsëgu jàmbur du la jig damay forcé lekk seen wërsëg du la jig bàyyil nit ki ak wërsëgam bàyyil nit ki ak alalam bàyyil nit ki ak dooleem bàyyil nit ki ak citizenam mu mën koo wéyal ci biir dëkkaam ku bugg a war a bokk bokk ci bokkin bi nga xam ne dafa leer waaye buñ xañ kenn nit warta bokk ngir ne dama bugg suma waay ñëw lan moo tax ñuy xejal gaay yu ñuy ñëw pour lan la ma fi yàq mu defar ko lan moo tax ku falu doo nangoo jóg fii Afrique rek ngay gis ka taxaw ne yow doo fi tekkee doo fi doonee dara su subaa mu doon sa xarit moo la xelal ki la wax ne doo fi toog doo fi waatee tay mu la xelal xam nga lool afrika rek la nek te lool yeb day mettil xol nit ñi so xoolee suñu rew mu fi tay ñaata nit ñoo fi rey ay doomi jambour ñaata nit ñoo fi alali jambour tay ñu ngey wene wene ci biir dekk bi fi dafa am gatché ñu ne la ki mo rey suma bay te yang ko gis ci supermarket si mo door suma bay te yang ko gis ci supermarket xool Europe tey suñ mënee atte bàyyiloo ña nga xam ne la bàyyiloo defal mbir mi ana ñu tey ñu ngee doxi seen soxla lii Afrique rek nga koo gis ndax lii moo war a continuer ci dundinu askan ci biir réew atte dafay am foog atte am foog baalante am waaye baalante balaa mooy am foog ñu atte képp ku yàq nañ la jaarale ci yoon waaye suñ njiit it bu ñu xabaabal ci njorin loolu rek man loolu moom a métti ci Afrique fii xool leen Cameroun waa jaa ngi ci fotti somtin wutali na fotti léegi lan la yaa ngee doon buur doon président ba mënatuloo dox doon président ba sooy dox di daanu nanguwuloo bay yaa ngi toog rek xam nga kon sooy ut korop demal si ñooñu toog bañ a bàyyi ku ñëw lam waxoon waxeet ku ñëw lam diggee woon du ko mën a def xool leen Afrika xale yëpp ñu ngee faatu xool leen Afrika xale yëpp ñu ngee faatu soo demee Sénégal barke dem waa géej gi dafa génnee ba doylu ñan ñoo fa dee Gambie Sénégal ñii rek Guinée ñoom ñoo fa nekk soo demee Niger ñaa ngee dee soo demee Algérie xale yaa ngee dee soo demee Tunis xale yaa ngee dee soo demee Libye xale yaa ngee dee soo demee Morocco xale yaa ngee dee xanaa yéen président yi gisuleen lii balaa ay balaa ngeen a créer ay démonstration di téye ay opposition di leen dugal di leen tappaat amul njëriñ xalaatal xale yi nga xam ne ñu ngay jël mbëkk mi la ñu naan Barça wala Barcelona nañ leen xalaat foofu nañ xalaat xale yi nga xam ne ñu ngi toog amuñ liggéey nañ xalaat xale yu jigéen yi nga xamante ne ni wàcc nañu school te amuñ liggéey xale yu góor yaa ngi toog kër yaa ngi fees del ñi dem nañ ñii ñu ngi toog ci dëkk bi amuñ si luñ téye loolu lañu war a xalaat waaye déedéet damaa toog te duma jóg ay bakkan di faatu damaa calcul suma parce que foo fekk ku naan damaa xool ku may wuutu jubuloo so jube do xalaat kula wutu na dem ñafe da nga ñafe togu bi ku ko bugu ci say nit na dem ñafe nga def sa ten years doxee sa soxla jamu ne ñoy ken jëlul réew ay bakkan rot bakkan bo gis mu rot ba ngay jël nguur la ko indi moy eh, sa haqa ak sa yelef lañ la xañ askan bi ñu ne déedéet dañ ci bokk démonstration yi nga fay dégg yëpp doo dégg sordaal dee na doo dégg police dee na waaye nit ñi ñooy dee ñay sànni carte ñooy dee ñan ñooy dee mooy xale yi ñan ñooy dee muy jigéen ñi lan mooy ñan ñooy dee muy góor ñi waaye lan moo tax démonstration su demee ba métti sordaal yi ñëw jël nguur ñan ñoo leen ko jox président yi nga xam ne dañ leen dee sànnil carte ci démocratie ñoom ñoo dee tax sordaal yi di am loxo ci nguur yi parce que suñ ñëwee jël nguur gi def ko nguuru gunaa naat jabar doom nijaay jarbaat xarit mbokk lii rekk nga bugg a woon nag ne léegi liggéeyu ndey la te nguur du liggéeyu ndey nga bugg koo jël na liggéeyu baay la nguur du liggéeyu baay nga bugg koo jël liggéeyu góor laa jàmbaar laa te nguur du liggéeyu jàmbaar du góor yaa ñun ñëpp président Barrow moom sax xam na ne nguur yàllaa koo joxe moom si boppam tey soo ko laajee dina la woon ne du jàmbaar yaa moo tax ma am nguur Macky Sall soo ko laajee dina la wax ne du jàmbaar moo tax ma am ma am nguur Bazoum muñ coup d'état barki Dembo Ndiaye dina la woon ne du jàmbaar yaa moo tax ma am nguur Alpha Condé ñaata at mu ngi opposition yaa waaye ba yàlla toggee lu muy togg ba pare la ko jox président yaa mu ñëw fuuy ne maa ne woon ten years léegi na damaa def référendum dama ko yàq léegi dama toggaat ba saa yu ma doyloo mel ni réew mi yow sa bàyyi ko liggéey moo ne 20 by 20 dëkk bi ñu ne du ko am ñaata gineer ñoo faatu balaa Alpha di bàyyi nguur gi ñan ñoo jox tey kolonel colonel bi fa nekka tey ku ko ku ko jox nguur gi askan bi la Alpha moko ko jox nguur gi parce que Alpha su respect gon loi yi kon guiné du am coup d'état guiné kon du don am coup d'état way ñàkk respect guinéen si Japune né mom moy jambar mom indi mo tax tey mu guiné nek fu mu nekk Guinée ni won ko ne lolu du dégg tay du dégg élect ñu taxaw jamar jàmbaarloo mom ci mbedd ba xey sordaal yi jël nguur lu tax soldaar yi jël nguur ña ñan du ay guinéen ñan ñu leen ay faat du ay guinéen ndax loolu dafa war a continuer déedéet moo tax coup d'état bi ñëw taxaw kolonel ba nga xam ne Alpha moo ko yar jàngal ko jox ko moyen moo ñëw génnee ko ci togg bi kon foog ñu bàyyi suñu xel ci yorin la nga xamante ne ni borom bi moo ko joxe jaarale ko ci askan bi Kudita d'état am yep dara du ko indi yorin bu ñaaw rek yorin bu ñaaw moy tax kudeta di am wa réew pour rew bu am yorin bu rafet lepp nga jaarale ko ci démocratie démocratie yalla ci jitu molas moo la moo la moo la te fekkeewuloo def la bakkan deful la dof jox la xel jox la khalat deful la nak ba pare ëlbatiku yar la tàggat la jox la xalaat ngay xalaat nga mag mu ne la yoon bu baax ngi yoon bu bon a ngi bu la si neex nga jël su la neexee nga saaga ma sama fuu su la neexee nga jaamu ma sama yoon waaye bésaa ngi jot dinañ la takk bu baax dem gas la suul man foofu laa la xaare kon démocratie kan moo si jiitu ndax léegi jar na nit toog ci toogu bi ne man may buur man may xañ kii man may may kii te yàlla xool tout million people mu ne la yow yaay buur yàlla xool réew mi nu mu tudd one hundred one one million ak lu teg mu ne ko président Barrow yow yaay buur xanaa ka loolu rek doy na nga dem ci réew yoo xam ne three million people mu yëkkati kenn mu ne ko yow yaay buur nga dem ci réew yi nga xam ne ten million people mu yëkkati kenn mu ne ko yaay buur xanaa loolu dafay wone ne amee nguur doon président du liggéeyu ndey du liggéeyu bàyyi yàllaa ko joxe lan moo tax suñ toogee giridi lan moo tax suñ toogee buge lan moo tax suñu toogee commencé am yeneen i programme yu wuutee programme yu amoon dimba bépp président buy ñëw ci toog bi li ngaa njëkkaa xel yi ngaa njëkkaa am mooy sa askan yërmande baax teey xam soxlay nit ñi waaye soo ñëwee toog ña ngaa njëkkaa def noon mooy fa nga bokkoon opposition waxuma la Adama Baro de dañ fi am Adama balaa gaa yi di foog ne Adama Baro laa fi nekkee di kalaw kalaw yi fii <laughs> gis nga gaa yi seen bopp dañuy nekk si opposition ya di xeex nguur su ñëwee toog ñu ëlbateku di xeexaat opposition xam nga lu ñu laa njëkk a wax mooy doon opposition baaxul ñàkk gëm yàlla la te yow kon anaa yow looloon def xam nga loolu naxee mbaay mënu koo weesu yow nga nekk opposition xeex ba doon buur nga ëlbatikuwaat nga ne doon opposition ni yaa weddi yàlla la si buuri yaa yoo xam ne sax attewuñ yàlla su fekkee suñu réew mi la fi barke Dembo Njaay téewuñ fi góor jigéen anam mu ngay doxi soxla ñaata góor jigéen ñoo nekk ci dëkk bi fii ñaata sàcc lañ fi téye bàyyi leen ñu doxee seen soxla dañ dog seen loxo ah? ñaata ñuy màndi lañ fi gis ñuy jaay drogue dañ dañ leen rëy te jaaykati doro buñ téye su fekkee charia la dañ la war a rey kon ñun atteewuñ charia nañ bàyyi suñu xel ci foofu waaye la commencé xew West Africa daw na yaram ruslu na njiit yi amuñ benn yërmande si seen do si seen njaboot gi moo tax ma ne ëllëg mus naa ko suma benn pro ma ne leen billaay bépp njiiti réew ëllëg àllaaxira da nga rëccu lu tax nga jiite woon réew da ngay rëccu lu tax nga doonoon président parce que président bala nga ko don da nga wara jang lan moy président lan moy njit lan moy njit imam sa bañ nañ ko suñ ko tanna dañ wara ñika set gem yalam gem yalam ak yermandem ak teyam ak njubam ak selam ak bugal nit ki lu bax ba yalla ñew mu ne li nga bugal sa bop dag mako bugal soko manulé rek matulo njit waye ñaata njité ño sank ay doomi adama ngir lan dañ bëgg togu bi te yow bugguloo ko buggu toogu bi te toogu bi xarit du ko joxe jàmbaar du ko joxe mbokk du ko joxe yàllaa koy joxe te toogu bi dañu wax ne ku ko bugg danga koy ut lu waa ñëw taxaw lu tax ngay xañ kii bàyyi kii nañ delloowaat suñu xel ñu xam ne àdduna dafa jeex moo tax benn njiitu réew doo dégg ñu koy ziyaare amul benn personnel bi ngaa dégg ñu ngi koy ziyaare parce que seen liggéey léegoo la def dee barkeet yi wallahi lazim billahi benn njiitu réew ab fan nga gis njiitu réew bu bàyyi ñu ko fàttaleku soo dee sa moo gën a bon soo dee sa moo gën a bon xanaa ñu góorgóorlu sa tuddee la xam mbedd walla xam tabax soo reppee sa tabax bi dañ koy fàtt parce que seen liggéey dangaa xool ba si kanam nga ne dafa barkiyaat yi parce que loolu lay niroot ana former président Babi Liman sax kenn du ko moom yooyu musuta jiite réew mi benn demba la gis sa ñu ngee kalaw kalawee jabaram ba won man si laa soog a xam ne ndekete sa dafa tàggoog mu dara gënta daw yaram loolu jité réew ñaar fukéta ak ñaar ñu top la ci xaliss top la ci ay bakkan lolu doyul sa jabar fasé la lolu doyul nga exile lulu yëpp lan moko indi moy jël togu bi ne suma geño jël toogu bi ne suma ñaq la jël toogu bi ne suma bakkan la jël toogu bi ne man maay góor ci dëkk bi jël toogu bi ne suma yaay mooy jigéen ci dëkk bi jël toogu bi ne suma baay mooy góor ci dëkk bi ku dul suma baay baay kenn amul ku suma yaay yaay kenn amul te anamu anamu te demal këram bi kanilaay mbóot yi ak janax ya unk yi ñoo fa ne ndax loolu moo war a ne te ana anabasum ñu ngi ko tëj benn benn néeg ka doon dox ñu ko xalal yoon bi muy fararari dara du jàll te anamu ñu ngi ko tëj benn palaas ana Alpha Condé mu ngi ba Dubaay ah ana Lassana Conté ana Blaise Compaoré ana IBK kooku moom faatu ana Idris debi ana Gaddafi ana Omar al Bashir dëkkam nyari ngi tass ñaari president ci ben dëkk fetel ya ngi do ratatat ratatat ratatat lan moko indi bugge takkiyee si ndax li la Afrika heyo ana domi Afrika yi ñu ngee dé ci bir geej ni ay wiñ lan mo leen ko yobé you yu bon nguur yu bon corrupt governments moo leen ko yóbbee te ni ñu ñuuli rek soo leen xoolee tonis ñu ngi ci àll ba fa lañ dikka ñi ay gambien la ñi ay guinéen la ñi ay malien la ñi ay sénégalais la ñu ngi ci àll ba toog ñu ngay sofa ñu ngay sona ana président yi ñu ngay yaataa yumbe ana seen jabari ñu ngay yaataa yumbe ana seen doomi ñu ngi amee diplomatique passeport di doxi seen soxla waa ana doomi ñu ñàkk ñi te di doon loo ñuy doon lool ñay doon dara ci réew mi ana doomi ministre yi diplomatique passeport ana doomi permanent secretary yi ana doomi directeur yi ana doomi député yi ana doomi caaman si ana doomi mayo si ñëpp a ngi tekki ana ñale naa sànnil carte di dee ci mbedd mi ana ñu tey ñoom ñoo nekk Libya ñooñu tey ñoom ñoo nekk Tunis ñu tey ñoo nekk Algeria ñooñu tey ñoom ñoo nekk Moroko di faatu ñii di xaar seen dee te jotaagut doom ñu ñàkk ñi rek ñoo nekk si demal si teaching fiil bi doo fa gis benn doomi ministre doo fa gis benn doomi permanent secretary doo fa gis benn doomi director doo fa gis benn doomi président doo fa gis benn doomi former président doo fa gis benn doomi eh, ambassadeur ñan ñoo fa nekk doomi baadoolo yi lekk maalo bu tàng suba si ñoom ñoo fa nekk lu néew sax ngay dem ci wàllu wér-gu-yaram bi nga fekk fa doomi big man yi te duñ leen yóbbu ci àll ba de ñu bari ñu ngi fii komb fii waaye doomi ñu ñàkk ñi ñoom la ñoo ci àll ba te noo mais wérgu yaram bi soo fa demee ñu néew nga faa fekk doomi ñu am ñi ticin fiil bi kay foofu moom foofu mbalit la rek soo demee suma maas gi rek seen doom yaa fa ne xamuñ dara ay sa mu ñu mujj soppi nag collège bi private dangaa fay balaa moo jot certificat tamit lu métti métti nga fay fa benn thirty thousand woo koŋ pour tëju dërëm ndax lii la moo war a ne ndax lii moo war a ne ndax noonu la war a mel ndax noonu la war a demee déedéet suñ njiit yi nañ bàyyi seen xel bu baax jamono buñ nekk dafa saat jamono bu metti la jamono bu raglu la jamono boo xam ne fit amatut fit fit fit fit moo am ragal amatut jamono buñ nekk nii jamono ji jamono ji jamono fit la kon suñ njiit yi dañ war a bàyyi seen xel ci seen yorin ñuy sooraale ñu ñàkk ñi ñu bañ a xool seen oto yi neex yi ak AC yi di upp ñu bañ a xool ñu leen ay gëm loolu du dëgg tey ñaata nit ñoo nekk ñu ngay sonna fii ci réew mi fii ci réew fii fii ci réew mi fii ñaata nit du ci lopitaal yi du ci daara yi du ci jàngekaay yi du fépp foo dem réew mi ñu ngi sonna moo tax président bi da nga war a jël sa ñaari loxo matuwaay nga jëflante ak sa ña nga xam ne ñoom nga jël pour ñu liggéeyal la pour réew mi dem ci kanam xale yu góor yaa ngi sonna liggéey amut te léegi sa président bàyyi sa xel bu baax gis nga yoon bi yoon bi nga dee jël di tukki dañ ko dee téye two hours ñaari waxtu dañ ko dee téye te loolu bokkoon na lu taxoon ñu doon mere Baabi Limansa moom dañ doon téye yoon bi tri hours le wala four hours yow tam gars yi commencé nañ di ko def ñun ñu ñàkk ñi benn yoon lañ am muy Westfield Brikama suñ wàccee fa la ñoo jaar suñu ñibi fa la ñoo jaar da ngaa ñëw ñu téye yoon bi tout hours doo dem fenn doo dikka fenn ñu ne ka ñu ne président mooy dem président baro ma ngi laa ñaan foofu waxal ak sa gaay yi yàlla la aar fete lii wax la rek pistol lii wax la rek bépp buur yàlla koo aar li la ko won moy so si plein bi kan mo fa ana fetel bi ana pistol bi yàlla moo la fa amee ku la amee si jaww ji na moo lay amee si suuf si parce que jiitewuloo jaww ji suuf si nga jiite nit ñi dëkkuñ si jaww ji si suuf si lañ dikka kon Mr President maa ngi laa ñaan lillaahi wa rasuuli yoon bi dañ ko dee téye lu yàgga ñu ngi la koo ñaan waxal ak sa gaay yi nañ wàññi lu ñuy yoon bi ci two hours utali three hours dafa bari te ñu ñàkk ñoo dëkk ci réew mi ñu amut ñoo dëkk ci réew mi ñu ndóol ñoo dëkk ci réew mi te bokk na nag su fekkee ne fukk moo tax Yaya Jammeh dem bokk na ci téye yoon bu yàgg te ñu ngi la naan nag ñetteelu taam xeju fi jamono TV la seen bokk la Salifou Thiam ba ëllëgati incha allah.